mel ni ni ko mbokk mi waxee li nu bokk nun ñëpp te mënuñu ko séddoo fu nu dajee rafetal ko rekk war moo waral yëkkati kàddu gi nu ne dañuy waxaaleel doomu soxna yi waxaaleel tarixa yi waaye kenn ku ne ci nun bi ngay ñëw feddali sunuy kóllëre ndokkeel si njabootug maam Cheikh Anta ci seen màggal gii nga xam ne màggalu jullit yépp la moo nu indi woon kon toog déglu leen bu nu paree ñuy ñaan ñu tàllal nu delluwaat loolu rekk buñ ko amoon it doy nañu sëkk waaye ka ca bokk bokk boole ca boppam buñ na ko ci nga bokk jox ko ca cirit day jël rekk waaye noonu bu nu waxutoon it doy na sëkk ndax teraanga ji mat na euh, tatagal yi doy na taxit lu yàgg la alxuraan nag la mu nu dénk te jàngal ñu ko aw foo bil ahadi innal ahada kaana an u masula danu fu nu war a toll di mottali suñuy kóllëre te di ko feddali ndax ëllëg kóllëre yàlla daf nu koy laaj moo waral màggalug daaru salaam gi jamono buy ñëw fekk na nun xam nañ bés bi yittewoo ko it ba bu boobaa duñ dem ci lenn duñ waxi lenn lu du ci bés ba la ñuy ñëw lu ñuy wax wax ko ci kon sëriñ bi noo ngi yëkkati nuyoo bi di ko teg ci sa loxo maam Cheikh Anta yàlla na nga fi yàgg loolu te wér nga tegal ñu ko ci loxo xalifa bi tegal ñu ko ci njaboot gi yépp képp koo xam ne kii rek soxee koo nga ci maam Cheikh Anta yàlla na yàlla dolli ay leeram noo ngi lay nuyu noo ngi lay sargal noo ngi lay ndokkeel ci màggal gi di nuyu bépp doomu soxna boo xam ne nekk nga fi waaye di nuyu it suñu mbokkum bopp ndax noo ko bokk ca jolof muy sëñ moodu Mamour bu sëñ Falilou bii dugg léegi di it ko lëre bu yàgg nu di ko tiitaroo it bu baax déglu naa ko ci kastul rajab bii weesu lu dénk ko taarixu kastu rajab bi mu waxtaan ca waxtaan wu yéeme ci arxa arab bu wér waaye leeral ko itam ci lu gàtt ci wolof ba ku ne dégg ko waaye nun jaaxalunu ndax jàpp naa ne nangami at ca gannaaw daje nañoo ak moom ca Maroc ci duruusul xasaniya bi nga xam ne Hassan moo ko daan def ba jóge fi doomam di ko def booba kilifa diine yépp ku nekk yebal nga fa sa doom waaye lañ fa doon wax ca jamono boobee moom mii lañ ko dénkoon mu defee ko defit woo xam ne kenn ku ne ba mu paree da nga caa gis ne doomu soxlaa rek doyut waaye jàng gën a wóor maa ngi nuyu ñëpp képp ku fi de di feddali suñu kóllëre ak maam Cheikh dama ko fay waxoon nangami at ca gannaaw la léeg-léeg fàllu galas mii di ko nettali ne képp ku lay organiser lu jox la bésam nga dawal ren ba déwén te ko ku bees ci mbooloo mi bu yeboo mu nangu ko te xam ne mënoo waaye lii day bañ ko dénkee maam Cheikh ak léegi at mu jot boo ñëwee ne nii mu demee mosu koo demee ni mu mel mosu koo mel man nag yàllaa ma suturaal sëñ Saaliwu Mbakke yàlla na yàlla dolli ay leeram moo ma boole woon ak moom mii loxoom ak sama loxo ak loxo sëriñ bi ba fu ma masaa soxlaa sëriñ bi su ma ko jotee alaaji fàllu faal ba bàyyi ma yoro maag alaaji ànd ñëw dama naan ko bis sàngam rek laa bëgg a ñëw ci sëriñ bi waaye gannaaw ga mu ne ma sëriñ bi nee na amatuloo bés ci moom amatuloo waxtu waxtu woo soxla mbaa bés boo bëgg a ñëw ñëwal moom mii nag mu taxaw ca taxaw bu wér muy maam Cheikh bi jant bu mbëllëxi amee gàmmu it sëñ Saaliw defar délégation jël ay teraangaam yëkkati ko teg ko ci loxo moom mi mu indi ko léeg-léeg it sëriñ bi soxla euh, yëy nañu ndam ndax ki nga xam ne mi ngi ne ngéej nga woo ko te boo ko waxee mu ñëw boo ko yónnee ndaw ndaw lu toll ni maam Cheikh kooka bëgg ko yéy ndam rek léeg-léeg sëñ Saaliw am yi mu soxla wala lu muy wax daal di woolu ko moom mi ba mu ñëw mu ne ko boo demee na nga ko jox sama doom jede joxal ma ko sëñ Alioune Ndiaye ne ko nangam ak nangam ak nangam bu ñëwee ma ne ko daal sëñ bi daal gannaaw maa ngi ne woon géej man mu woo ma te bu ma wooxoon nit ma ñëw bu la yëkkatee yow kii nga toll ca Daaru Salaam yónni la ci man mii de dafa bëgg rek xanaa bëggal ma ndam te ku ko déggit xam ne am na fu ma wéeru kon nag maam Cheikh ñu ngi lay feddaliwaat sunu kóllëre di la ñaanal lii ngay organiser yàlla nga fi yàgg lool xalifa yi fi jaar. nga ànd ak ñoom te bokk ko kenn ku ci ne xam nañ nam la doyloo woon xalifa bii fi nekk gis nañ ni mu la doyloo mbir nag boo ca bokkee luñ la ca jox dalay doy soo ca bañ a yàq waaye la nga bokk nag teel caa dugg te xam ne ca nga bokkit dana dimbale doomu aadama Abdul Muttalib bàyyi la ci yonent bi bi Rasulullaay di dugg ci ay loxoom juróom-ñetti at la am waaye ba mu duggee ci juróom-ñetti at ci loxoy Abdul Muttalib Abdul Muttalib yor na yonent bi nekk ak moom ñeent fukki at yu tegal juróom-ñeent ak juróom-ñetti weer ak fukki fan ak benn waaye bi mu demee ba toll ci xar-xarle waaye la taxoon rasulullah yor jóg la taxoon la ne ko yaay yonent bi dugg ca jëriñuwu ca te àggoon na ci rek mu ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dal di rasulullah gaarantil ko aljàddaam waaye gannaaw lay pas-pas te joxoon ko yonent bi la muy doon doon bayam yor ko 49 ans yu tegal 8 mois 11 jours nekku ca rasulullah la mu mën a wax rek mooy gëm nga ne day diine ju gën sama diine ji ma indi wàccu fi waaye nag gannaaw duggoo ci mënu ko caa jariñ dara kon nit la mu bokk na ko xam nit la mu bokk na ko téye nit la mu bokk na ko fonk nit la mu bokk na wax lu ko defar lu ca indi jàmm te téyel ko boppam kon nag daaru salaam jii day royuwaay la ci réew mi yéen ñi ko yore it di ko doxal nit ñaa ngi leen nawloo bu baax ndax la maam Cheikh dooy la woon maam sëñ Touba ku dem ca barab beenuy dalal doo bu soxna yi man maa ngi fa am néeg at mu jot bu màggal gi ñëwee dana xam ne yéen lañ leen dénkoon yéen a nga ci ndax bañ leen ko dénkee daaw wala daaw jéeg defar ngeen ko defarin woo xam ne wii na ko sëriñ bi bëggee woon matale ngeen ko te boobaak léegi lu ñu santaana ci kër sëñ Touba kenn mëtu leen mënu leen ci yàlla na sax yàlla loolu yàgg maa ngi nuyu nag soxna Mariam Badiane di ministre d'État di ku baax du ku ràññee ma di ko fekk ci président de la république te xamit cër bi ko président jox ak ni mu ko fonkee ay waxam néew lool te muy nit ku gore maa ngi nuyu également le gouverneur de la région di ku baax semaine bii képp wër naa def benn commission boo xam ne région yi daanaka Sénégal def naa ko doon toppatoo fu joxim jiw toll fu matériel agricole toll waaye bi ma ñëwee moom mii day ba jaar ci biroom xam naa ne ku réew mi ñor la te ko xam fu askan wi jëm la kon yàlla ko yàlla dalal jàmm ci région de Diourbel te taxawu ko waaye am nañu yaakaar ci moom bu baax yàlla ko yàlla dimbali di nuyu le euh, euh, moom ndaw ko ndaa gi rek ma ci jaaxal waaye wax dëgg yàlla nit ku baax la nit la koo xam ne kiit ku am taxawaay la maa ngi baalu àq ñépp di seddaliwaat rek suñuy kóllëre ak dëkk bi ngeen xam ne fii daal fu nu ne suñu xel a ngi fi lu fi xew di jàmm buñ sañoon mu yokk lu fuy dëgg mën na a yàlla bu fi agsi cër bi nga xam ne moom la am Cheikh amoon démbit nag fa tabaarakallaahu ngeen téye ko téyin woo xam ne ku ku xam ne kii cosaanoo rek naw na leen damay def léeg-léeg may dem booru tuubaatul di wër tool yi waaye léeg-léeg bu ma egsee ba jub tool mu yaatu lool ma ne waaw ku moom lii nga ne ma kii day sëtu maam a koy bay ma ne waaw lii day warta njombe kon su ko defee taxawaay yi moom ci biir ak ci bitti lépp rafet na kon nag maam Cheikh ñu ngi lay feddali waar daal suñu yàlla da koy néeg rek te yàlla mi fi newoon nag ci jamonoy maam Ibrahima makka ndox tëfa mu dem ba wàcce fa sam-sam sam-sam moom mën naa wàcce ndox bu ko gën a barkeel wala mu mel ni moom ci réew mi ku ci ruujoon daal rek saw jiw bu ko wàññi bu tawee jihal mu ne mu ne ŋàpp teel a la bay te nga béyee sa bopp yàlla waaye nañ wàññiw jiw ak dafa cate wóorut wóorut jileen na yaatu bay leen yàlla mooy taw yàlla mooy saxal yàlla mooy ñoral yàlla moo moom nag dana taw ndax yàlla fi newoon kat maam Ibrahima yàlla jeexalu tëlewut te indi ñu fi pour alal ñu yàlla daf ñu fay indi jàppale nu yàlla daf ñu fay indi pour yërëm ñu kon day man jàpp naa ne lu ci waay di wàññi lebal ma ko rek ma bay bu déwénee bu ñoree ma fay la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallah borom